ah réew mi kenn mënu fee focus kenn mënu fee focus yéen ñi ma jàpp naan waxal ci kaw barkeem lu ma fay wax ay dof yu dajaloo. Naby Vision. dof bii nga xam ne moom ak yàbbooyu mbuur bee yem ngeen koy jëy naan ko yaa capitaine ak coofa yem ci géej gi te xamul ne ndox mee leen boole. ndax nag lu réew mi métti métti boo génnee dem ca marché bale yow yàbbooyu mbuur bi mënoo weesu téeméer ak 700 ndax amoo njëriñ lu dul bëri yàq sew mën a naqaril ceeb génn ndox mi siti ci yaram yow bugaan amoo benn importance ci réew bi te yaa koy wut. bu ko am ci ñun al Ousmane du sa morom du sa nawle du sa àndandoo te àdduna du neex ba yàgg waa ji ngeen yem comme da ñàkki mbokk ñàkki conseil ñàkki xarit ak ñàkki soppe ànd ak ay wayu ay kooba ay bandi yoo xam ne dañoo géer géeri yëpp a dellu si toog ñu def la nagu sarax bi ngay kundung kundung nga sa buur bu rëy ak sa taat yu rëy ngay xëbër xëbëri nga mel ni doomu unku yu xees yooyu du def doflu ci kaw nit ñi demal sécurité état du ay caaxaan pour yéen seytaane yi fi nekk naan waxu politique la fii yoon defee am ku fi teggi ku ku teggi yoon yoon dal sa kaw Bougane li mu def ça n'a rien à voir ak Ousmane Sonko wala nangam dafa violer loi loi day dal ci kawam bu leen ñu fontoo nag bu leen ñu fontoo ñuy wax yow moom totoo épaté e ngay mën a duul bu ñu waxee ngay guddal ay tuñ di dof dof loo nga bitti kooñ yow caajaay ba nga dëkk sax fonkuñ la Pape Djibril Fall ndax xam nañ ne c'est un c'est un trafiquant de personnalité mën nga fen li la askanu Sénégal jëlee woon ba naw loola ko tuuti da nga koy yàq man j'ai toujours dit que yow tu étais tu es un trafiquant de personnalité xamoo sa bopp yow moom sa leel gu xool nga mel ni paa yu njëkk yooyu dem ba dellu si réglé leen Anta Babacar Anta ah Anta poussé Babacar anta nee naa la politique bi mënoon nga fee bay sa waar am ci sa wàll ñu naw lu la booleel ci jigéen yu baax yi fi mos a jaar di def politique waaye làng gii nga dugg dañ leen di sacrifier anta Babacar Ngom anta awa baax na comme yow nag dof nga amoo mbokki amoo soppee ndax réew mi boo fi amoon ay mbokk dinañ la woone la ay naw la nga nekkal ci réew mi la ngay def ak la ngay wax buggaan dof nga am am lu nga fit ba bugg fee am fit te yow doo sàmba doo dem ba caayalee leen boole te yow sa caaya dafa oyof bu ñu wax loo nag buñu wax lo réglel nabi Vision pour yeen saytane yi nak rew mi gis nga gal gi cap dafa am capitaine bu baax capitaine bu min géej gi gu xam ligeyam gu xam lamuy def day dam. ken mënu ko téré ku mëna régler duggu ci gal gi ne muut régler ñu and dem boko mënu leneen lo fi nara def ñu jalax la ci geej gi ngay dem régler len suñu gal gi mënu tu ko dello ginaaw ko ken mënu ko suru xal ku du suñu borom <laughs> awa baxna na bu wowati nak ci wax yi yow mom comme nga da nga mëna fen rek mëna a fen da nga mëna a fen rek baax na ñu dem. alaykum wa senegal man soxna nday sambe ay fal ma ngi leen nuyu maa ñëwaat di leen ziar di leen uh, baalu di balu ak di leen bal ak di ñaan yalla ñepp am jamm ku deglu vidéo bi yalla yalla yok sa jamm ma bëgg ñëw tuuti ci bugandani président Bougane yow suñu collègue nga suñu confrère nga journaliste nga woon te yaakaar ne jàng nga mais démb lii nga def moom danga tooñ dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg tooñ parce que nag moom sécurité président moom ah gars yi duñ ci jaaxaan de waaw kenn du ko négocier démb li nga def erreur la yow waxuñu la doo fi dugg dañ la ne taxawal par raison de sécurité du président taxawal tuuti xaar président génn nga dugg nga war a respecter institution yi mais loo wax yow da nga ni doo ko xaar doo ko def parce que jomaay moo nekk ci biir yow waruñu la téye ni gars kay leen kay leen dem man yow mosoo jaar ci journalisme yow xam nga ni président bu nekkee ci bërit bu xasee ba dugg sax ñu dootuñu dugg yow xam nga loolu ñi nekk nekk ay photographe caméraman yi bu ñu bëggee jege président tuuti sax dañuy wax arrière leen kon yow naka nga mën ne def yor sa 4 kat kan dafa xam du ci nekk ñu ne la taxawal tuuti yow police xuloowu la yow gendarme yi xuloowu la yow par des raisons de sécurité taxawal nga xaar tuuti nga génn dem nga dem loolu mettiwul Naby Vision président Bougane dama lay dolli benn conseil suñu frère nga suñu lépp nga mais dafa am noo xam ne boo koy opposé woo doo dem te Sénégal gi xam nga opposition moom ala kuli al kenn mënu koo bañ ci benn réew mais na nga xam nag ni ngay opposé wu mooy naka xam nga tey président Ousmane Sonko dafa jaay pré dafa jaay projet am ba egsi moom ñoom président Diomaye Pastef dafa jaay seen projet tey ba egsi yow am nga sa projet waxal sa projet nuy nga opposé wu yow salaamaaleykum maaleykum salaam ñii soog a jël ci nguur gi mi ngi mel ni ñuy dugg ci biir kër gi ñu ne salaamaaleykum waxaguñ leen egsi leen ci biir saal bi ñun ci ëtt bi nuyo ñu wàcc seeni valise nga ni naa commencé xeex ak gan gi mi ngi mel gan gu ñëw vacances rek tegagul ay bagage am nga xeex ak moom déedéet yow dangaa teel a xeex fii quatre ans ci kanam nga commencé yow heure bi non non non non man maa ngi ñaan képp koo xam nitu bugaan nga wax leen ak moom ay mbokkam nañ ko wëri parce que ñii dañu lay jay rek la ma doon wax président Macky Sall gis nga lii nga bëgg gu naan man maay góor ak man maay am fit yëfi du fit de yow kay da nga ni tibb tànk tibb nga tànk Macky Sall ba mu dem nga bëgg a def tibb tànk euh, Ousmane Sonko léegi yow defal loolu rek démb Ousmane Sonko wootee ca Arena Tour yow mënoon ngaa woote ca stade Ablaye Wade ba ca wetam rek yow loolu nga waroon def. mais nga xepp sa Ousmane Sonko nga ni maa ngi jàll ba ca jomaay ga dem Bakel ñu ne la taxawal xaar ñuy wax sa jigéen boobu naan dañoo indoon ay eh, vivre ay aliments di ko jox nit ñi mais kan moo leen ko tara jox nit ñi boo leen indee kañ seeni denrée alimentaire waxuñu leen bu leen ko jox population bi xaar leen ba président bi génn et puis ngay jékki-jékki dem ci population bi. Naby Vision billaahi wallaahi taalaa barki Cheikhul Khadim dañ lay jay ku la ne ci lii nga nekk ci dëgg démb dangaa tooñ ba jàll tooñ. dangaa tooñ de képp ku ñëw foofu naan la dañoo bëgg dañoo bañ nga opposé wu kenn bañu nga opposé wu fi yow yaa tooñ démb yaa ba dugg ca naajoot fële jaaxaan fa toog na la say mbokk na jël yóbbu xool lan moo nekk sa problème yow am nga problème ah? billaahi am nga problème nañ la wëri na la say doom téye parce que lii nga commencé jëmul kër réew mii la ma daan wax ca ba fi Macky Sall ne réewum jàmm la jàmm ñuy ñaan képp ku fi bëgg indi ay yàlla na dellu ci sa kaw ak koo doon jàmm rek la ñuy wër yow dangay ngay ci bu tànk rek toppal ci Ousmane Sonko toppal ci moom mais yow da nga xool ni président bi moom xale la Ousmane Sonko xale la nga xeeb leen daal mais ay xale la ñoom la yàlla te ci réew mi loolu la yàlla dogal kenn mënu ci dara. lii kenn mënu ci dara bu yoboon nag seen xol yi du xuñ-xuñ naan leen ndox mu sedd guy ak glace mu wàcc ngeen digéré ko xam ne lii la yàlla dogal muñ leen ba balaa cinq di ñëwaan na ngeen tegaat seen dënd samp ku mën gañe affaire bi mettiwul de mais nii ngeen bëgg a moom nii nga ko commencé moom jëmul kër wasalaam bugaan paaj yar paaj kaso paaj ñuus paaj bay baraan paaj bugaan xam bay bugaan bugg bu bugaan bul ma kat loxoonam man barke Seydina Mohamed raison yi nag man gendarme yi ci nekk maa ngi leen di bëgg a mere raison bu ne gendarme yi dañoo war a defar ak bay baraan ku ci jàpp bugaan ñuusal ma ko ay bay baraan ma ma xool benn place bugaan qu'est-ce que tu fii Lester Livre sa fa Mavarin loolu Youssou ko way bugaan régleel Naby Vision. Bougane woykat ba am na lu mu woyoon de Alpha Blondy Alpha Blondy am na lu mu woy de nee na tout sang tout s'évolue sur les imbéciles sur sang tout sang tout s'évolue sur les imbéciles ton sang ay imbécile ngeen sur sang beneen bi ci des yow yow Assane Diouf yow Assane Diouf yow dégg naa la ngay ñu invité la. kër dof nga naan xale yi jël seen xaalis di ko jox Seydina usmaan Sonko te usmaan Sonko loxoom jot ginnaawam ay njabootam seen loxo jot seen ginnaaw na loxo Ousmane Sonko jot asamaan na loxo usmaan Sonko jot asamaan laa la wax lum ñu sant ñu def ko saw xëlla nekku ci saw dajaw nekku ci saw xatara taas nekku ci saw fulli yow Assane Diouf yow xarim xurum xaq yow kattan xoonam fële yow kenn du la jox xaalis ngay dem ensemble ak sa musóor gi ngay mel ne bu màggat te dégg naa sa musóor gi boo ko tekkee da ngay miir ñun kuy miir duñ ko fal vatan farfet fët lii mooy lan xoolal ñun duñ ay yow bugaan yaay abraha bugaan yow yaay firawna yaay barke Seydina Mohamed bugaan yow yaay yow yaay sorsu buus bugaan yaay Ousama Ben Laden Naby cotto xoni bugan yaay pëlle yaay abadi pëlle salaamaaleykum gars yi avocat Sonko la maa leen di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ñaanal sama bopp Gai, tata may mën a nee na man ngeen di gaaruwaale waaye bu leen tur te bu leen taf d'accord bi hors focus la ba léegi hors focus gars yi gis léegi ay vidéo damaa yeew rek gis vidéo yi nii daanaka ma def vidéo ba def vidéo bi ma gis ay vidéo benn waay taxaw Ya ab takk der dégg naa commandant la xawma mu koy wax naan ko suma gene ci biti deg ñaan ma Sonko Sonko di ngeen am liggéey da mel ni ñaareelu bakkan momay may amna ku ñu rayon 2011 amna keneen ku mu bëgg a ci election yi ha lol lañ koy wax sax résidive résidive lañ koy wax la hmm, baax na ku signaler ñaan ñaa dana rey nit waaye man xam nga lan moo ma ci neex mooy waajooju ñu naan élément kooku moom xam ngeen ne moom man ba ma ko contré yàgg na ca daaw laa leen waxoon ne leen doome xaj la gars yi di ma weddi ñeen ñi di ma taf naan moom moo la gën a nekk patriote ak loolu dañu di ko wax moom moo dem gars yi ñëwoon di seetaan si xam nga Sénégal dafa bëgg seetaan gaa yi ñëwoon di seetaan si mu ñëw di leen vidéo naan waa kër BBC yaa ngi nii gone yi ñoo fi ñëw taxawal bi bis sénégalais yaa ngi nii ñoo taxawal bi bis booy ne ko rek ñun moom sonko kese neen sonkoo sonkoo sonko ah ñii mer ñi ñëwoon waaye lii kenn ma sax koo gis yow yaa ngi leen di duulal ñoom ñu weddi tuuma ci saase nga mer kon kay fenale nii la histoire bi demee ñëw di leen duulal naan waa ñoom bugaan lañ ñëw taxaw sil Nabi Vision. sax fur laa tudd tur sax bibis dama koy dag bibis ñoo taxaw di leen duulal naan bibis lañ ñoo taxawal ci ñom ñu weddi ne ñun sonko kese sonko sonko sonko ngeen mer di menacer da nan nan da ngay da ngay jël bakke nak da ngay nangal xamoon ngeen ne dëkk bi yeen da ngeen fee wéet xamu leen seen bopp ba léegi nak xamu leen ne ba léegi ni dëkk bi sonkooy borom yeen da ngeen ta gis nga campagne bi di ñew gona gi war na leen point faible am juda juda juda men juda jazz wan na leen boppam wax na leen lan mooy point faible am nee na sonko sonko sonko lay bañ <laughs> jàpp leen ko foofu rek waaw am na benn paa bu ngeen jàppoon ci élection présidentielle mu ñëw taxaw di wax ci biir maire yi ñu naan sonko sonko mu naan ñu ngi yàq xeew mi <laughs> jàppaat leen ko foofu <laughs> gidaaw loolu lay bañ. te dégg naa bi bis dañ koo placé mandat dépôt war koo àtte la trente. waaw yow Ba yow Barthélémy Dias Ba Barthélémy Dias nous on moom nit ba taxaw ci bi naan ku tudd Sonko nga nga nga nga mu hmm? jël ndayu Dakar nga xam yow da nga moom nit yow yow yow yow bàyyi Barthélémy réew waaw kon ne di saaga rek politique bi yaa boo bi saaga ba ñu saaga di Bougane Gueye. Naby Vision. dóor nañ ko mandat de dépôt fële ca Tamba Tamba nag buñ ko waxee xam nañu juge fa nekk. Bougane nag instant bii mi ngi dund lu metti ci kaso Tamba boobu mu ne Bougane jooy rek la fa nekkee te buñ ko laajee looy jooy danaan dafa tàng mais lii yëpp. bugaan yaa ko yóbbee sa bopp Bougane yamal regleel moom nag la 30 octobre lañ ko war a juger pour xam ndax dañ koy bàyyi wala dañ koy tëj mais kii di procureur boobu nekk Tambacounda te ñëpp xam turam te mu yoroon dossier wu Ousmane Sonko procureur boobu moom moo dóor kii di Bougane mandat de dépôt kon Bougane séjouru Tamba bi ñi ngi naan la bon courage sampal dëgër rek parce que ay nit nga fa fekk tamit ci kaso boobu nga ne te ñoom it dañoo samp dëgër yow nag comme que yaay défier président di défier euh, gendarmerie léegi assumer rek jooyi nag da nga koy wàññi foofu dina jafe nit seet si la fa parce que dafa sori sinon ma waxoon sa gars yi ñu indil la glace dañ ko soxla ndax foofu day tàng jër. massa nak dégg nga boo génnee na nga bu gan demal nga liggéey té bay politique bi do politicien xamono ñuy politiquer munoo yaangi sonal sa bop ba duggal sa bop kaso ya yow ya, ya wax ba duggal sa bop prison kenn japp la kenn provoqué wu la ya ñew fekk gendarmerie togn gendarmerie togn président pour dem kaso légui nak nabi vi fi léegi 30 octobre peut-être di nga di nga xaw régler di nga def une semaine une semaine xana di nga régler nak